xam ne nag ñooy teewal waa douane nekk ci Fatick ci li nga xam ne moo di seen mission de xeex ak li nga xam ne ah, moom moo di ah, mbuxum wala bon mbirum ju njaaj ñuy nemmeeku ca gox bale ah, nee nañu nag jël nañu teg loxo lu tollook ñaari tonnes ak ñetti téeméer ci lii di sabre indien maanaam li nga xam ne moo di sinébar loole nag ci atum 2020 bile ñu ngi ko xam xamle kilifa gi nga xam ne moom la ñu dénk subdivision boobu di na colonel Ndeye faatu Ndiaye gannaaw nag euh, ci atum euh, deux mille vingt ñoom gis nañu ne daal teg nañu lu tollook ñaari tonne ak ñetti téeméer ci wàllum euh, yamba boobee daanaka ñu xayma ko ci téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom ci ay millions xaalisu Sénégal lu ni mel nag ñu ngi ko xamal lii di ëttukaayu xibaar yi lieutenant kolonel Ndiaye moom nag ci bi lépp occasion fàttali li nga xam ne moom moo di journée bi ñu dénk wala ñu jagleel ko lépp lu jëm ci wàllum duwaan loolu nag daanaka mu mel ni. Euh, lu am solo loo xam ne ci wàllum euh, teg loxo ci ñaawteef ak njël yooye euh, ñoom nag teges nañu ko loxo ci li nga xam ne moom moo di ay pexe yu ñu nal ci gox boobu nga xam ne moom moo di bi lépp diiwaan garaaw nag la nga xam ne moom moo di mbirum drogue yooyu nga xam ne teg nañu ko loxo subdivision bu douane bu Fatick moom nag jàpp ne daal ci atum deux mille vingt am na nag lépp loo xam ne ay garab la yu am solo loo xam ne daal ñoom itam. tegees na ko loxo ci nag ak njuuj njaaj goo xam ne gaa ñi dañ ci bëggoon di ko rawale duggal ko ci biir dëkk bi di ko jaay li nag mu di nag uh, ab daal loo xam ne uh, ci ab xayma cantine bi am na solo lool ci ay garab yoo xam ne dañu ko jële ci biti réew dugal ko ci biir réew mi buñ ko xayma tollu na ci ay koppar ci uh, juróom si ñeent fukk ci ak ñeent yoo xam ne ci ay million naka noonu itam lu toll ak téeméer ak téeméeri junni ak Euh, ñeen fukk ak euh, juróom ñaar yoo xam ne daal euh, dugalees na ko ci li nga xam ne moom moo di la ñu teg loxo loolee ka nga xam ne nag mooy jiite douane boobee nga xam soxna la jàpp ne daal li am solo ci garab yooyee nag ñoom daal te gaa ñi doon ci def contrebande ca Fatick Gambie lay bàyyi ko ak zone ya nga xam ne ñoom wër ci li nga xam ne nag moo aajowoo ci région de Fatick ñoom jàpp nañu ne li nga xam ne moom moo di île di Saloum itam gis nañu daal mbir mi jamono bi ma ngi fay jaabaa jonge te terewul ñoom teg nañu fa bët ngir lépp lu fay mën di tukkee ñu mën ko teg loxoo jàppale ne itam ca la nga xam ne moom ngir yombal lëggéey bi ñoo eh, ñooy soxoo jamono bi ca bilep brigade subvention eh, ba nga xam ne daal ñoom waa duwaan eh, na mees na def bokk na ci itam di woo population yi ngir ku ne dugal sa loxo ci xeex boobu rawatina ndaw ñi nga xam ne ñoo fa fekk baax te nag faral euh, lu ci ëpp di jëfandikoo euh, li nga xam ne nag moom moo di euh, ciné bar yooyu te nga xam ne dañu ko aaye fu ci réew mi. ñi nga xam ne nag ñooy teewal waa douane nekk ci Fatick ci li nga xam ne moo di seen mission de surveillance xeex ak li nga xam ne moom moo di mbuxum wala bon mbirum ju njaaj ka ñuy nemmeeku ca gox bale